jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su wolof nag daf ne bis boo gis bis lay fay mbaa muy labal bés bis ba nag daa mel ni bi ñu ko jàppee àpp bi yàggul fële ca Pullman ak ki nga xamante ne mooy boggal production vraiment mu fas yéene présenté askanu làmb ci dugg séem ci làmb muy affiche bu mag boo xamante ne ñaari mbër la boole ñaari mbër yi ku ci nekk ndaanaan nga ci gox bi nga xamante ni fa nga dëkk ku ci nekk ndaanaan nga ci wàllu làmb waaye yaakaar naa ni <laughs> bis boo gis daal bis bu neex lay doon lan moo la dugal ci bis bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw ñoo ngi lay fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa parcelle 1 di nuyu waa Boguel fi ma cosaanoo aussi di nuyu képp ku fi toog di nuyu ménagères yi di la nuyu yow mi di nuyu sama grand bi toog Moustapha sise waaw comme ni ngeen ko gisee rek ñëpp ni ngeen ko gisee. Mm. Abou lan moo tax nga jël suwaaw ñaari mbëri ñaari mbëri moom jarul ngay tudd seen tur ñaari mbëri lan moo tax nga am seen suwaaw. waaw comme man man dama doon dund làmb te man dama yàgg bëgg lu metti ma xam ne lii combat bu metti moo nekk nii combat guerre. Mm. combat jaram dem moo nekk nii. Mm. moo tax ma tëgg combat bii nii. Mm. Mm-hmm. combat bi dat ban dat nga ko fas yéene tëgg pour ñaari mbëri wane ci seen bopp. incha allah bu saison bi ubbee laa ko bëgg soit mois de novembre lay nekk wala décembre. bu ma ci am dat rek incha allah. Mm-hmm. ayca kon Adama dañuy tourner nuyu ki nga xamante ne mooy ménagères yi nuyu xaaral ma njëkkee ci Père Sow Père Sow maa ngi lay nuyu baax. waaw maa ngi lay siyaar Ba Jili di nuyu sa caméraman di yëpp di nuyu promoteur bi di nuyu assistant bi yëpp. waaw tey tey promoteur bi indi indi nga sa ñu fas yéene tëgg combat rempli nga rempli sa contrat diggante nger bu zap ak ki nga xamante ni mooy euh, Belende bu Grand Médine combat bi bi nee na passé na. waaw xam nga ki ko taxawal wax naa ko sàng ki ko taxawal day day dafa nekk mbër. parce que am na combat yoo xam ne yow sax bi ngay présenté yaa ngi ree parce que xam nga ni. dégg nga ni nga présenté nga xam ni kon donc li indi. coomo du ko indi parce que euh, wax naa ko sàng nii parce que bu jaaree ku jaar ci làmb rek <clears throat> mooy mën a xëy xëy rek génne affiche mel nii te jàpp na lii bu bu ko nit yëgee dañ xam ni taxawal na affiche bu bu bu bu doy war li ma ko waxee sàng ba léegi rek laay waxaat damay gërëmaat Usu Ngeer li tax ma koy gërëm mooy Blindé dafay nekk kenn ku ne xam na ni euh, ñàkk bërëm du ci moom ñàkk bëreem du ñàkk promoteur parce que li promoteur yëpp yëpp bëgg képp ñu làmb xam ne am nga ko dana mobiliser li làmb bëgg mi ngi la am mbër yi le fait que moom bu bu nekkee aussi moom grand frère am ñëw na nga koo message bi ñu ko waxee amu ci lenn lu mu ci lu mu ciy xalaat rek vraiment moom itam dañ koy dañ koy remercier dañ bu baax a baax a baax a baax a baax waaw non combat bi xam nga xaalis lay doon yow tam yaa ji loolu jëru sax wax non sawaay kay sawaay kay xam naa ni non sawaay sawaay jàmbaar la en tout cas la dañ ko jàpp di di gërëmaat aussi Ibnu euh, sama sama sama grand frère euh, Ibnu Diop ménancéru euh, Nguer comme ni ma ko waxee sànq rek moom du suñu mag suñu xarit ñun ñëpp ñu nekk benn en tout cas ñu fas yéene jàppale promoteur bi parce que moom ndaw la ndaw la ñoom ñëpp ay ndaw lañu ñun li ñu li ñu war rek mooy ku ñëw ci làmb ñu jàppale la nga fexe ba nga dem ñun fi actuellement nii bu ñu signé contrat bi tey tey ba jot sañu avance ba pare fii nii nii actuellement dañuy daal di bëgg wàññeekuwaat nekk ci côté promoteur bi di ko jàppale parce que mooy suñu cër mooy suñu cër ñun ci côté moom lépp luy xeet ak promotion ci loolu la daal bëgg a nekk mbër yi nag ñu bàyyi leen ñoom ñu nekk seen bagage bopp ba bés ba ñoo def li ñu war def vraiment di ñaan ñëpp yàlla solo Adama Tournel imnu maa ngi lay nuyu tey nga ñëw fii di remplir sa contrat diggante ak euh, Blindé euh, yëg-yëg bi ak combat bi taxawaay bi ak dayo bis bi asalaamaaleykum Euh, maa ngi leen di nuyu yéen yëpp di leen gërëm ah leen nuyu seen tur ak seen sant moo di leen nuyu yéen waa Wasaare bon di gërëm promoteur bi di gërëm euh, sama mbokk manager bi muy Sourou Fall moo di gërëm ñaari mbër yi parce que comme ni ma ko waxee woon rek combat bi euh, combat boo xam ne ñëpp ko bëgg waaye nag yàlla def na ñoom waa Boguel production ñoom ñoo ko tëgg ah lu ma def loolu ñaane leen yàlla ko waaw ñaane leen yàlla incha allah bañ àgg ci jàmm parce que comme combat bi des na parce que dëwan la ko bëgg a tëgg ah en tout cas ñun ci suñu côté vraiment danañ def lépp lu lu war pour que combat bi réussir bon ñun nag ah, yaakaar naa ne ku ñu jël da nga xam da nga da nga xam ne carrément yow jël nga ay mbër ndaxte kii di ngeer ñu koy wax ngeer zam bon defe naa ngeer ñëpp xam nañ ko parce que jaloore bu nekk am na ko bës bu nekk am na ko takkusaan bu ne am na ko ah bu loolu xam naa ne vraiment ah, lépp lu ko war a ci làmb ji dana ko si def bon Blindé aussi tamit ah, xale la bon xale la boo xam dafay dem bon ñun nag vraiment mën naa ne nit dañ koy may chance ndax ñu ñoo ko jëkk ci làmb ji wante na comme ni ko waxee garab moom ni ci kaw lay fekkante ah loolu moo tax xool nañu ne bon war nañ ko mën a jël parce que champion la moo mi ngi ci làmb ji ñoo ngi ci làmb ji te aussi tam ñoom ñaar ñëpp seen seen liggéey rek lañuy def ñoom ñooy mayante xaalis. Sowru mos ngeen a daje. moom Sowru xëy na peut-être mos naa daja ak moom ci ci beneen combat def na waaw da daje effectivement daje woon nañu. waaw Bour Sine waaw daje mas nañ daje waaw moom moo yor Bour Sine man ma yor ngeer ko amoon ndam moom moom moo amoon ndam ci Bour Sine waaw wante fas yéene dajewaat ak moom waaw parce que lamb moo mel noonu lamb moom da ngay daan tey ëllëg ñu daan la rek lamb li may wax rek euh, maanaam kenn mënul kenn ah. waaw xëy ne jëkk jóg la rek waaw yàlla def na ne xëy na combat boobu jëkkoon nañ ma jóg wante incha allah bii dana fagaru ba loolu du am Nguer ñu ñu ngi lay nuyu bu baax yaakaar naa ni sa combat bokkoon na ci combat yi gën a jafe boggal production décroché combat bi sa diggante ak euh, Blindé bu Grand Midi nee na bu Parcelles ngeen fas yéene laale yéen ñaar suwaawu <laughs> suwaawu Blindé lan la. waaw onze billahi mini seytaani rajim gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi di sant suñuy waajur di sant di sant àdduna bi yëpp di jaajëfal ñëpp. di profité ci occasion bi ci julli bi ñu jëm di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq euh, sànq suma adversaire daf ma daf ma dafa loqati sama lanc mooy ñi nga xamante ne suñu borom moom na leen suñu borom xare leen àjjana ñi nga xamante ne ñu ngi ci lalu hôpital yi tëdd aussi suñu borom fëgg seen bopp fëgg seen dënd ba ñu dellu si seen njaboot massion spéciale promoteur bi Bogel production ak station ñoom Moustapha ak waa parcelle yëpp mention spéciale la ñuy wax di ko wax dugg bi mu dugg ci contre Blindé ak Nguer yàlla bu mu doon lu muy rëcc yàlla na doon une bonne continuation di nuyu ñaari ménagères yi di leen jaajëfal yéen waa Wassare TV aussi bés wi lu mu laaj dañ koy def waaw lu mu laaj dañ koy def ndaanaan mbër champion moo tax ma jël ko li sama ginnaaw fàtte naa ko li sama kanam laa visé pour jam ko te xam naa ne champion la du arrière un pas kon dañuy dalante moom xam na loolu dama gis soo am chaque fois rek day bëgg a bëreek mbëru Pikine xaw ma diggante ak Pikine ban problème la ñu am ba nga jël ko non non non xam nga làmb day am day am day am ay moment yoo xamante ne say adversaire si benn côté la ñuy lañuy la ñuy la féete boo xoolee làmb ci sama génération man ci li ma def ci làmb ñu ci bëri bàyyi nañ làmb man ci sama génération boo xoolee man maay sama génération 2005 2006 la kon tey ndimbalu suñu borom ak nekk jàmbaar ak ak ak ak ak ak ak bëgg li ngay def moo tax tey nga bëreeg say moroom bëreeg say mag dem di bëreeg ba bëreeg say raq mooy lii tey mooy làmb kenn rawul kenn garab la rek ci kaw la ñuy fekkante tey dafa def ay preuve am parce que sport mooy gagné mooy lan ngeer bu wëlbatikoo dem bay jël Blindé sax parce que Blindé dafa def ay ay preuve moo tax mu jël ko. rawatina promoteur bi aussi nekk benn si jeune boo xamante ne dafa ambition ak waa Bogal production ak ñoom Moustapha et ainsi de suite ñu am benn benn yéene. pour jàppale jeune parcelle pour jàppale jeune Sénégal pour jàppale axlu làmb ki ko tëgg tamit dund làmb xam li nekk ci làmb xam li ci neex xam li ci naqari kon donc tey kooku bu amee ñëw benn ambition bi nekk benn si jeune pour am fu mu fu mu fu mu jàppalee ay ay ay dëkkandoom goxam Sénégal noo kooku dañ koy jàppale te yàlla tax. Blindé maa ngi lay nuyu Bogal production taxawal na sa combat sa diggante ak ngeer bu Zap. suwaawu Nguer lan moo tax nga bëggoon bëreeg Nguer yaa ko laaj dañ la ko proposé wala yow yaa bëgg a bëreeg mbëru Pikine. waaw onze billahi mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim ginnaaw ba ñu sant yàlla julli su yeneen tamit di sant suñu ñaari waajur di gërëmee eh, sant tamit wasaare TV di gërëm promoteur bi Bogal TV parce que gis nañ moom lu mu ci jàppee gis nañ démarche yu mu ci def gis nañ coono yu mu ci daj avant combat bi di taxaw nelawul yendalul liggéeyam da ko jël bàyyi fële pour lan de bëre pour la guerre bëre mu boole ñaari champion yoo xamante ne der lañ ñaari champion yoo xamante ne lañ kenn dootu leen publicité si làmb kenn dootu leen wax lu ñu def si làmb kon làmb jooju su demee ba décroché ko ak ni mu dugg see si làmb kon dañ koy defee mention spéciale. Nguer yaa ko soxla. yaa ko laaj dañ la ko proposé wala lan. Nguer champion la. Nguer mbër la. waxuma loolu de. mbër la te man damay bëgg di bëri mbër. man awma problème adversaire awma problème bëre boog ay problème adversaire la am ah, ma promoteur yi ma tëggal. yaa laaj wala ngeer dañ la ko proposé. dañ ma ko proposé man ne làmb la. da ngeer dafa nooy moo tax nga jël ngeer. non su nooyoon du ma bëreeg moom mos nga gis sama combat ma bëreeg ko nooy. mustaam moom su nooyoon du ma bëreeg moom man su ma nooyoon du bëre man ndax moom tolloogul fu ma yàqoo bay bàyyi làmb si yoonam la nekk man ma nekk sama yoon ba dab ko. ndaanaan la. ndaanaan rek laay bëgg di bëre ndaanaan mooy daan ndaanaan de. yow da mbëru pikin lan la sa diggante waa Pikine. dara nekk si lu dul làmb ñu nekk ay mbër mu nekk mbër. Iba Mar na mbëru Pikine boo doon dëkkanteel xam nga ma xam nga simmeeku wàcc nar a génn. non non loolu loolu dafa waroon taxaw rek. loolu dafa waroon taxaw comme bu jàll nañ si loolu ñu si combat bi. Hmm. ah nañ ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek mbër boobu nga wax soq te soq gis nga dugg na parcelle gis nga lu mu demee loolu bëgguma ci sax wax loolu jàll na dem na seeti leneen man ma seeti leneen. waaw. xeex ngeer làmb ji daal lu ma la mën a wax lu mu laaj ma joxe. mënoon na xam ne. booy dañ lay bàbb. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga dafa wax wax bu am solo mooy lu mu laaj kon ndax may fekk si li may wax. à chaque fois ñëw ma pour may benn booy sens damaa ñëw pour jihaat pour jël tamit li ma moom ku nekk gis na booy yi ma bëreel yëpp du ma seqi un pas làmb la comme li muy wax lu ne mën naa nee man non yow sañ nga maa laaj ndax mën naa lii wala mën naa laa non dama dama lay laaj ndax mais yow ku bëreeg franc ba leen da lay jaaxal. ku bëreeg Mamadou Ndiaye Blindé la lay jaaxal ku bëreeg champion yi nga non bu ma wax loo baal nañ daas rek ba affaire yi waaw ba ci jaam a gën a xam waaw nañ daas l'essentiel daal li ma la mën a wax mooy di la ko assuré moom xam na loolu mooy étincelle day am parce que booy la ku am fit la te jàmbaar la te dina ma woon jour boobaa moom dina ma woon ne ma man booy laa te man duma ko ko may. mais yow koo woo ci xeex du la wuy est-ce ko wuy. waaw comme lu mu wax moom day jixat yàlla dafa def nag man damay badar. yow damay badar. kon te badar weeru koor lañ ko doon def su may ñëw damay xiif te si laay gën a mën a xeex. yaa ngi dégg est ah. beneen bi si topp xam mooy lan mooy man. diw kii la bëreel diw kii la bëreel man loolu xooluma ko sax gisuma ko sax gisuma ko sax ànd moom xam naa ni non moom ngeer bu sab ngeer bu saf si boppam xam na ni moom étincelle boobu muy wax am na benn mbër bu ko doon wax yaa ngi fàttaliku ay étincelle muy génn ay étincelle muy génn après dafa mel ni ndox bu sedd no lépp mun na si xaj ade li ma ko mën a xamal mooy comme moom jihaad lay def man badar lay def jeex na làmb ji neex na ba pare sot seeg def si la six mooy neuf nee na la jihaad laa ak badar man ma ne la sot si ak def si la kon wax ji jaratul bar muy bari. dañ koy tuddee combat jixaat ak badar. <laughs> ma la mën a wax daal mooy. xale laa. damay dem. ci kàttanu yàlla kenn du ma téye su neexee yàlla. du ma mag mu yàqu te du ma mag muy maye dara li ma bëgg a jël dama koy jël. li ma ko mën wax daal mooy. mooy làmb ji ku ko tëgg xamu ko sax. waaw après la ñuy comprendre quoi <laughs> suñ su jógee moom dina comprendre. <laughs> yàlla na yàlla def jàmm. lépp loo gisu ne. <laughs> lundi moo ci dàq. macha moo ci dàq euh, ñu bàyyi leen ku ci nekk mu tàggoo woo ay mbokkam ndax yaakaar naa ne bis bi amagul dat ndax saison prochaine la ko promoteur bi bëgg a tëgg te xam naa ne yéen ñaar ku ci nekk wàccaay bi war ci bis bi li ngeen ko def ci wàllu mobilisation ci wàllu jaay combat bi lépp am na leneen luñ ciy waajal ak promoteur bi. dañuy jox ngeer moom mu jaajëfal ngoor moom xam naa xaru tabaski boobu fi mu toll nii waxuma la xaru tabaski waaye léewalal sax xale yi ku ñëw nga jox. non promoteur bee may jox xar ak ak moom Blindé ay ay géttu xar la yor comprendre nga waaw. waaw ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di jaajëfal ñëpp di wax euh, li am nii vraiment am na solo ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaanal promoteur bi encore une fois. ak waa délégat waa Bogel production rawatina copain Moustapha frère comme ni koy waxee xam naa ne ku ko fonk la yàlla neen yàlla lafal cat e, e, di jaajëfal ñaari ménagères yi père yi boobu léegi vraiment ñi nga am yeneen yitte yu ñu dox te vraiment seen i mbëre leen ko jaral ñu ngi leen di sant leen gërëm ak moment bi nga xam ne moment bu difficile la moment bu xat la yéen aussi ngeen bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp rawatina comme Omar Saliou mooy li ma la wax rek Blindé aussi champion la ñu ngi koy jaajëfal l'essentiel 200 pour cent bi. monsieur le maire Isaaxa ñu ngi lay woo pikin suma mafia bi Pam Ndiaye Ibrahim suma doomu ndey Espagne waa Paris maa ngi ñëw combat bi Paris laa koy entraîné waaw wala Espagne wala state yeah damay damay am camp back maa ngi ñëw bientôt du yàgg maa ngi ñëw la woon fa woon rek na waaw mafia bi géré leen la waaw li war yëpp def leen ko quoi man li si des man la quoi incha allah jaajëf. waaw man moom damay woo ñu ma war a woo rek laay woo. 1 hmm. ba 26. maa ngi leen di woo si combat parcelle 1 ba 26 maa ngi leen di woo si combat bi 100 pour cent parcelle bi tam maa ngi leen woo si combat pour ñu jàpp si. Hmm. su ma jógee si loolu damay dem ba France sama mag bu ma bokkoon ndey baay. Hmm. fàttewu benn yoon bàyyi ma benn yoon ñu koy Ablaye Diop yal na ko yàlla kàttan gën ko dooleel. ndax xam naa ne su ma amee combat da si teg ba kanam. te xam naa fu mu toll si man. maa ngi koy woo si combat bu baax di woo grand Aziz kooku sama grand la sama lépp la di koy ñaana taw tawfeex ñoom Pape Sidi maa ngi leen woo si combat di woo sama benn copain bu nekk États-Unis ñu koy wax Mamour Jiite maa ngi koy woo si combat bi di woo ñoom Moussa Kanité di woo ñoom Bois Soirée di woo Assane borom Global Textile yaa ngi dégg di woo Cheikh Ibra borom Tissu maa ngi koy woo bu baax a baax a baax di woo euh, sama gars yëpp yu may jàppale su ma limee juum waa grand Sayer Sayer Ndaw maa ngi koy woo ñoom Omar Omar Ndaw maa ngi koy woo bu baax a baax su ma limee rek damay jum parce que ñi siy jàpp dañoo bari maa ngi woo ñëpp daal maa ngi woo ñëpp ñu si war a jàpp di woo Père Ba nag si combat bu baax a baax Mansour Ba maa ngi koy woo si kombaa bu baax a baax ñu jàpp si combat bi combat la te si kàttanu yàlla su neexee yàlla ngeer naa ko daal. jërëjëf maa ngi lay nuyu euh, sa frère fas yéene dugg ci làmb nekkoon mbër bëre tekki ngëmam doon promoteur ngeen accompagner ko mu tëgg combat bi nga xamante ni moo dox ci diggante Nguer bu Zap ak Blindé bu parcelle nan nga yebee sa rakk ak bis bi lan ngeen ci fas yéene ak nan nga fas yéene accompagner sa rakk. asalaamaaleykum wa rahmatullah donc di leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa wasaare internet yëpp. di nuyu manager yi nga xamante ni ñoom ñoo fi jaaroon tey pour signer contrat bi di nuyu lutteurs yi di wax ni euh, Abou Calamber euh, ci niñ ko gën a xamee ak waa Boguel production yëpp li ñu def tey dafa nekkul am solo parce que tey dañu lancé carrière euh, promoteur en tout cas abu Calamber ndax nag ni nga ko waxee dafa nekkoon mbër macha allah ñu ko doon accompagner man ma nekk frère am ñu nekkandoo aussi ci mouvement Sénégal autrement bi may coordonné mais ñu daan demalante tout le temps bi muy nekk mbër chaque fois ñu ko doon accompagner. mu dem ba gis ni am na lu mu mën a apporter leneen lu bokkul ak euh, di takk ngemb di bëree parce que seetlu woon na ni cachet yi. ni ñu ko doon joxee mbër yi awul woon yoon parce que ci ay ticket lañ ko doon jaarale. mais aussi quelque fois sax pour lutteurs yi am ay combat dafay dafa doon difficile. donc yàlla suturaal ko aussi mu am possibilité tëgg leen. ñu waxtaan ci ñu encourager ko pousse ko ci aussi mais mu nekk ko nga xamante ni ko am Pastef la ko nga xamante ni ko am yitte la par rapport ak euh, li mu bëgg donc loolu moo ko may tey effectivement bi mu lancé carrière am ak léegi yàggul mais mu mën a tëgg combat bu toll ni combat bi ngeen bi ngeen gis man miinu ma làmb bu baax a baax mais su ma gisee mbër yi damay xam ni dëgg dëgg dëgg combat bu war a neex la combat bu war a mun a neex la parce que ku ci nekk aussi mbër yi déjà neexoon nañ am nañ doole ñoom ñëpp euh, nuru nañ ñu mën bëre mais aussi nur nañ ñu ñemente parce que wax ji dégg ngeen ko ni mu ni mu demee donc loolu yëpp rek di wane ni eh, ci dynamique bi ñu nekk mooy fexe ba promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes fexe ba jeunes yi di jël ay responsabilités donc loolu moo waral tey abu Calambert xale bu ndaw la mais mu ñeme taxawal nekk promoteur song ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon mais aussi taxawal boole ci fulla bu dëgër dëgër dëgër parce que bu ko neexoon mu ni dafay dafay tëgg ay bëre koñ wala muy tëgg ay bëre terrain yu ndaw mais dafa song arène eh, awale ko ci yoon tëgg ay mbër yoo nga xamante ni macha allah ay mbër yu mag a mag lañ donc ñun en tant que ses frères ñun en tant que ñoo nga xamante ni ñoo bokk vision parce que ñoo bokk objectif par rapport ak li ñu li engagé wu il fa il fallait ñu accompagner ko et si taxaw incha allah dinañ ko accompagner Sénégal autrement yëpp pas que man maa ñëw mais ñëpp dinañ ñëw accompagner ko ñëw ànd ak moom pour que li ñu war a liggéey li mu war a liggéey ci ci ci ci bërëb bi li mu war a liggéey ci arène nationale bi incha allah mu mën ko mu mën ko mottali. jërë ngeen jëf.